ñuy wax Malick Ndiaye mu ñëw wax loo xam ne dara lu ci dëkk parce que comme tey juru tam xel loolu nekk feet dañoo waroon di teg waa gox bi rakam nag mooy président finance penc moom lañu yóbbuloon coupe bi mais biñ demee ci néegam ñu fekk ko fa bu ñu ñëwee nag euh, sant dama gis mu def benn statut boo xam ne dafa bind jox na ASC penc cinquante bi cent franc jox na bi ñu gisee jàppale ci Amadou Yaya moo ñu moo ñu jàppale ci finale bi. Mhm. Amadou Hott Abdou Salam ak Modou Gueye. ñooñu leen gis si jàppale gis ñu keneen. ak Modou Mbène ñooñu leen gis si jàppale. kon day am loo xam ne nag ni su koy wax na ko teg dëgg quoi. Mhm. ñun ay say penc ku ñu xam xam ne du ñu sakk jëf am na yoo xam ne newuñ ci yooyu. Mhm. joxuñu cent franc joxuñu dara. rek mm-hmm. rakkam nañ demoon seeti ko yóbbuñu ko parce que mooy président finance ay say mm-hmm. yi penc. Mm-hmm. loolu moo wax noonu dara du ci dëgg. mais lan mooy problème bi moom dafa mer wala wala loolu moo waral mu jékki-jékki def ay accusation moom. yàgg na ci équipe bi politique mais suy politique du na romb ay say penc ñun suñu yëngu ci loolu. dañuy jàppale dëkk suñuy gox ñooñu lañu gis ñooñu bu ñu bu ñu jaaxle ñooñu lañu gis ñooñu jàppale. am loo xam ne neewuñ ci yooyu. ku bëgg leneen loo def nag. ASC bi moom bëgg ci dugal. ndax accusation yooyu du am lu am lu mu yàq seen diggante ak ñenn ñi xam ne dama ne keneen defaat damay dama averti ku ko lañ lay jox te nag ñu nangu ASC bi nekkoon ci suuf ñu ñëw ak groupe bi ma àndal ñu yëkkati ay bi mhm. ba ASC bi ñëpp bëgg ko nit jóge fee di ko yàq duñ ko nangul kenn mhm. léegi léegi ban taxawaay ngeen amaat si lii na pour mu bañ a amaat ci ñeneen ñoo xamante ne peut-être que euh, dañoo bëgg a yàq non képp ko defaat dañ la plainte képp ku jël ASC bi jël tur dugal ci loo xam ne amul. wala nga jël image ASC e wala nga jël image seen président. Mm. bu ko yàq dañ lay plainte.